إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني
أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ما من خير إلا دلنا به وما من شر إلا حذرنا منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد wa alihi wa saxbi ajmain mbokk jullit yi comme ni ngeen ko xamee daarul birr tv mi ngi delsi waat ak yéen ci émission yi muy amal ak yéen ci weeru koor bi tey ñu ngi jëm ci waajal weeru koor ñu am nag sunu gan gu ñu fonk di xarit di soppe di wóllëre di mbokk pas-pas raw sax mbokk deret muy al ustaaz Cheikh Ndour bu suuru nekk fa imam nekk boroom xam-xam bu mag macha allah boo xam ni mi ngi yëngu ci toolu daawa bi foofu ca île di Saloum moom lañu war a amal tey jotaay ci tomb bi ma leen wax léegi muy waajal weeru koor walla wàccaayu weeru koor kon maa ngi koy bàyyi mu nuyoo incha allah ñu dugg ci waxtaan bi yaa Cheikh
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه Cheikh Omar ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonantaam comme ni nga ko waxee tamit ñëw pour fàttalante ak mbokk yi ci naka la ñuy waajalee weeru koor wi ndax la chaque ne gan gu màgg la gan gu tedd la woo xam ne daanaka léegi tey mu yegg si ñu koy naan yal na yegg seeg jàmm rek te ñaan sunu borom subhanahu wa taala an yuballigana ramadan salaamualeykum wa rahmatullah amin ya rabbal alamin amin ya ilaha sama amin ya ilaha al ard yal na yàlla nangul ñu ñaan bi nga ñaan fuulal na jul ñu ko defal ñu ci lu raw suñu njort oustaz comme niñ ko waxee suñu mawdu mooy istiqbaalu ramadaan istiqbaalu ramadaan mooy gàttandu weeru koor walla waajal ko suñu bëggoon a xam tomb boobu lan la ñuy wax nit ñi insha allah rabbi
waaw loolu maanaam buñ ko bëggoon a xamal xamle dañuy ne rek weeru koor comme buñ ne nañ ko waajal wala nañ ko gàttanu kon dafa mel ni gan la boo xamante ne comme niñ ko ko niñ ko waxee ci ubbite bi gan la guy waaj a ñëw nit ki nag bu fekkente ne am nga gan goo xam mu doon sa wóllëre nga fonk ko mu lay waajal di ñu di la di la gane si nga xam ko di nga ko waajal waaye soo koy waajal it da nga koy waajal moom ci li mu bëgg donc weeru koor gi nag nekk gan goo xamante ne moom it dafa am yu mu bëgg yooyu mu bëgg nag ci lañ ko koy waajalee waaw.
li ñu koy waajalee ustaz xam nga weeru koor comme ni nga ko waxee. weeru màgg la. nekk weeru barkeel. comme borom bi ni mu ñu ko leerale shahru ramadan alladi unzila fihi alquran mu ne weeru koor mooy weer wi nga xam ne ci lañu wàccee alquran ba pare ne hudan linnaas njub la pour ñeel nit ñi kon waajal weeru koor woowu ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko waajal mook saxaabaam ñoom lan nga gis ni moom lañ ko doon waajale waaw euh, niñ ko doon waajalee mooy gën a yeesalaat suñu ànd ak suñu bëgg-bëgg ak téere yàlla bi subhaanahu wa taala nga xam ne moom mooy anniversaire u ko weeru koor Euh, su ko defee euh, niñ koy waajalee mooy préparel ko ay euh, nafar yu bari ak njàngat yu bari ak di jéem a leeral téere yàlla bi ndax ñu mën a xam la nga xamante moom moo di nammeefu borom bi subhanahu wa taala ci ay kàddoom dundal ci tamit jàkke yi fàttali way fàtte yi daal di tamit dimbale ñi nga xamante ne xëy na seen xel nekku ci woon wala xamuñu woon weeru koor gëddam su ko defee ñu xamal leen lan mooy weeru koor dëgg-dëgg ndax nit daanaka bari na lu mu xamul rek wala lu mu réere mbir li ci gën a bari du ko jox yitte su ko defee ñu xamal nit ñi yittey koor su ko defee ñu mën koo waajal ni nga xamante ne noonu lañ ko war a waajalee bismillah kon waajal bi daal man li ma jàpp mooy ndeke li ci jiitu mooy ñu waajalee ko ragal yàlla te xam nga ni ragal yàlla mooy xayru zaadil mara mooy yóbbal bi gën te nit di ko yóbbaloo ndax ragal yàlla li muy jëmbat ci nit mooy day jël nit jox ko ak nite ragal yàlla day soppi saay-saay def ko ku baax day soppi jaam def ko gor boo seetloo Bilaal ibnu Rabaax ragal yàlla moo ko def gor su fekkul woon ragal yàlla mi ngi ca moom mën naa am kon du gore kon ndeke ragal yàlla lu ñu war a waajal la loolu nag ndax rek dafa war a yem ci góor ñi jigéen ñi bañ cee bokk walla dafa war a yóbbu góor yóbbu jigéen alhamdulillah ragal yàlla boobu ñépp la war a yóbbaale dafa war a yóbbaale góor yóbbaale jigéen dafa war a yóbbu mag yóbbu ndaw dafa war a yóbbu sëriñ yóbbu taalube yóbbaale état ci réew moo xamante ne réewum islaam la su ko defee ñoom ñëpp kenn ku ne daal di waajal weeru koor gi ci ak ragal yàlla bu mat sëkk ki mën a dimbale as néew si doole ci koor gi ba mu mën a am lu mu jàppee lum lum lu mu jafandu ba mën a def kooram ni mu ko ni ni ko yàlla bëggee mu def loola loolu nag dafay laaj ñaari biir ndax dafay laaj ki mën a dimbale nit ki ci wàllu xam-xam na ko dimbale ci xam-xam xamal ko lam xamutoon leeralal ko ko ki war a mën a dimbale nit ki tamit ci wàllu financé na ko tamit dimbale financièrement ndax tamit mu mën a am lu mu dalalee xelam ak lu mu dalalee njabootam mën a joxe koor gi koor daal wax dëgg yàlla bu fekkente ne ñëpp waajal nañ ko nañ ko war a waajalee jigéen ji dina ci fegu ku góor ki dina ci fegu jigéen ji dina muur ay cëram dina gàttal ay tànkam kenn ku ne fa nga daan faggoo bàkkaar di nga tuub ci yàlla subhaanahu wa taala tawbatan nasuuxa kon su ma la déggee mooy ndeke bokk na ci ñaareel bi ñuy waajale koor moom mooy tuub tuub nag ci mbooleem bàkkaar yu ndaw ak yu mag yi nëbbu ak yi feeñ kon góor war naa waajale koor ragal yàlla waaye jigéen it war naa waajale koor ragal yàlla ndax ragal yàlla su amee mooy lépp mën naa rafet ndax kat mel na ni weeru koor jubluwaay bi yépp mooy la'allakum tuflixuun ndax ñu texe te texe nag kenn mënu koo def te ragaloo yàlla léegi bu ñu doon xool ragal yàlla ci ci jëmmu nit ki nan lañ ko mën a xamee ci moom alhamdulillah ragal yàlla niñ koy xamee ci jëmmu nit ki ragal yàlla dafay feeñ bu nekkee ci nit ki buy dox day feeñ ci ay doxinam ndax borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko orienté ci ni mu war a doxee doxin gu ànd ak ragal yàlla wala tamshi fi l ardi maraha alladina yamshuuna ala l ardi hawna yooyu ay mandargay ragal yàlla la buy feeñ ci doxinu nit ki noonu tamit dafay feeñ ci colinu nit ki moo xam góor la moo xam jigéen la bu ragalee yàlla ragal yàlla day feeñ ci colinam lan moo tax ndax bu fekkente ne dafa ragal yàlla bu dee góor la day roy ci ki gënoon ragal yàlla ci nit ñi nam daan solo loolu day feeñ ci moom te mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam su dee jigéen la tamit dafay roy ci ña gënoon ragal yàlla ca jigéen ña mooy saxaabiyaat ridwanullahi alayhinna jamia su ko defee day feeñ ci waxam feeñ ci doxam feeñ ci colinam feeñ ci xoolinam ak ni muy sopparñekoo ci biir nit ñi ci biir société bi yooyu yëpp dafay feeñ ci moom du nekk koo xamante ne euh, ci melokaanam boo ko xoolee am lu la ragalloo ci moom ndax ku ragal yàlla fu ko nit fekk rek da koy ñeme da koy bëgg
kon ndeke ragal yàlla su ma comprendre euh, ci ci jigéen ji buy waajal koor su fekkee daa meloon neneen war naa jéem a changer loolu waaw war na ko changer bu ko fekkoon mu daan meesu na ko bàyyi te tuub ko nag ba faw ba faw ba faw maanaam du ko bàyyi rek ci diire koor gi déedéet day ciy tuub ba faw su doon tamit da daan bàyyi yaramam ci biti na muuru nag ba faw mu muuru ba faw ba faw maanaam kon weer wi nekkul rek weer wuñ ko naan na sellal na muuru Déedéet.
mais na sellal continue continuer la D'accord, sellal.
beneen bi tamit mooy bu fekkoon da daan def ixtilaat mooy da daan jaxasoo góor ñi na leen sori ba faw na bàyyi loolu ba faw waaw su fekkoon tamit mu tabarruja la na ko bàyyi tabarruj googu na ko bàyyi jigéen dafa moomul foo jot rek ne faax waxtaan fa xarxataay fa dem sa yoon Eh, su ko defee nag ci ku góor ki tamit su fekkonte ne da daan fréquenté béré bu fooweekaay yi béré bu caaxaaneekaay yi na ko bàyyi ba faw ndax borom bi indi wuñu fi ngir fo borom bi indi wuñu fi ngir fo def ñu fee indi ngir ñu jaamu borom bi subhanahu wa taala
kon euh, dama seetlu fii léegi yaa ngi commencé gis télé yi ñu ngi commencé wax ni koor gaa ngi ñëw jigéen ñi nañu jéem a sellal Eh, te liñ ci jublu mooy col gu gàtt gi sol bu xat bi ween yi génn ci biti yaram yi génn ci biti nañ ci dimbale nit ñi loolu ndax koor rekk lañu war a may nit ñi permission ginnaaw koor ñu dellu ci dañu nekkoon walla loolu dañ koo war a bàyyi rekk ndax ñiy woor mën a fegu walla loolu dañ koo war a continuer def ndax yàlla bëgg na ko walla yàlla bëgg ko alhamdulillah loolu dafa war a continuer melokaan boobu maanaam bàyyi colka gu gàtt gu yaraax ah cër yuy feeñ loolu jigéen ji da ko war a bàyyi giir gi dundam ndax kat tuub bi yàlla subhanahu wa taala di nangu mooy ki nga xamante ne dafay tuub tuub ju sell charte yi tuub daal di ca nekk te mooy bi ci jiitu mooy rëccu la weesu woon ci ñaawteef ya te nit ki nag lim rëccu waratu koo ñaareel kon du ne rek damay tuub bu weeru koor bi jàllee ma delluwaat na ma meloon kon boobaa tuub googu yàlla du ko nangu ndax yàlla kenn du ko nax yàlla kenn du ko nax te it bàkkaar dul ne weeru koor lañ koy bind bu weeru koor jàllee dootul bind dootuñ ko bind dañ koy marqué giir gu dund dañ koy marqué kon daal tuub bi daal dafa war nekk tuub boo xamante ne day continuer waaw day waaw sax bu fekkee dañoo bëgg a tuub euh, lan mooy charte tuub ndax ñu xam ko ndax euh, ñi ko xamul xëy na bari na ci jigéen ñi ci xale yi góor yi ci ñëpp maanaam tuub lan mooy ay chartam barakallahu fiik Euh, tuub charte yi bi ci jiitu mooy rëccu bàkkaar ba nga defoon ba mu jaral la nga di ko tuub yéene ne li des sama giir gi dund dootuma dellu ci bàkkaar bii ba pare nag fas yéene nag defar li yàqu woon tegu ci njub nag di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu saxal la ca te it ngay def ay effort pour mën caa sax yii bu dajee ci nit ki day am toujours lu koy contrôler ba nga xamante ne bu naree jàdd rek loolu da koy naan ah xoolaatal de la nga doon tuub ak fi nga de fi nga ñëw waaw yooyu ay mbir la yoo xamante ne faw nit ki bàyyi ci xel.
kon daal su ma la comprendre te dégg ndeke islaam li muy tuddee tuub mooy rëccu li muy tuddee tuub mooy dellu ginnaaw kon daal dafa mel ni ndeke tuub mooy ku doon dox rek joggi xal bi mu joggee xal yuuxu tëb ni wuy sama ndey xam nga buy doxaat dootu ci jaar dootu ci jaar mu ko kon loolu mooy tuub ndeke kon yow jigéenu jullit bi nga di jigéenu jullit nga woon di sol yëre yu xat waaye waaye bàyyil xel ni sa borom da koo tere yow jigéen nga xam ne jigéenu jullit nga doon sol yëre yu gàtt xamal ni sa borom bugg ko da koo tere yow jigéen bi nga xam ni danga bàyyi woon sa kanam mu mel ni la neex xamal ne loolu borom bi da koo tere kon ndeke loolu waajal te bàyyi ko te xam ni koor gi di ñëw buntub ragal yàlla la buntub ragal yàlla nag mooy defaru ba faw mooy moytu ba faw léegi oustaz su ma bëggoon a ñëw waa ndax musicien bi wala rappeur bi wala ku mel ni moom moom nan la war a waajalee koor waaw moom ni mu war a waajalee koor mooy mu nangu dëgg nangu dëgg mooy mu nangu ne moom ci li mu ne def ko métier du métieram jullit du métieram ku ragal yàlla allahu akbar du métieram jullit du métieram ku ragal yàlla ndax lu borom bi subhanahu wa taala xaraamal boo ne yaa ngi koy def xamal ne la ngay def noonu du métieram jullit te it mu xam ne kat métier moom mu yore li ci daje ci ay danger dafa bëri bi ci jiitu mooy moom mu ngay gaaral boppam merum yàlla ak sanjum borom bi subhaanahu wa taala beneen ba mooy lam cay gañe jàppee ko teraanga ma ngay dundalee njobootam lu yonente bi salaa sallam nee na bépp suux boo xamante ne la ko suuxat ba màgg mooy lu xaraam ne yaram jooju aram na ajana maanaam xaalis bi mu am ci musique bi ci musique bi dund ci waaw dundal ci ci jabaram njaboot, waaw.
dundal ci waa këram Waaw.
ndeke kon ñu ngi suuxat seen yaram ci lu yàlla nangu ci lu yàlla nanguwul Allah.
lu leen di jurali sa war a ëllëg allahu akbar kon loolu lu mat di moytu la nga xamante ne dara jaru ko fi ci àddina fii dara jaru ko fi
waaw oustaz ndax musiciens yi kon ñoom xam nañu lii ah man dama foog ne xamuñu ko waaye illaa boog nga xam ne euh, xam nga tamit nag dafa am loo xamante ne dafay maanaam arab da day faral di naan euh, fi- fi kulli mawridin azbin ziham rooteekaay bu neex bu ne rek day am laxasante ay ñoom raj raj loo waaw donc loolu euh, daanaka nit ki ci li mu ne di ci gañe xaalis ak xaalis ni muy dalalee xelu ñenn ñi nga jékki-jékki bés ne ko ba ba ko mu xalaat ne lii su ma ko bàyyee ci lan lay jàpp yàllaa ko mën a baaxee dëgg pour mu nangu ko pour mu nangu koo bàyyi waaw mais oustaz musicien bi nga xam ne jullit la te moo ëpp ci suñu réew am sëriñ gëm ko bëgg ko kooku bu fekkee sëriñam xamalu ko danger bi nekk ci musique ndax dana yomb mu bàyyi ko Euh, du yomb mu bàyyi ko te it xam nga loolu li koy waral mooy euh, musicien bi réere na mbir waaye sëriñ bee ko gën a réere mbir allahu akbar sëriñ bi sëriñ bi mu jàpp ne moom mooy sëriñam moo ko gën a réere mbir lan moo tax moo ko gën a réere mbir moom la yàlla gàll ciw loosam pour mu gindi musicien bi ndax xamut te jël na léppam jox ko ne ko yow laa yaakaar te moom li tax ñu mu ne ko ba yow laa yaakaar moom moo woote woo xamu xam-xamu diine moom moo woote woo teg tànkam ci diine kon na ànd ak ragal yàlla bu mu ko wutee ciiwte ndax tey lu bari ci sëriñ si tey sëriñ bu musiciens yi woyul sax dangay jàpp ne yow doo dara doo sëriñ kon moo tax ma ne sëriñ si boppam moom moo gën a réere mbir musicien bi allahu akbar allahu waaw xam nga man oustaz ah bu indi nga bunt bu bu bu xaw a doy waar de su fekkee ni sëriñ bi moom moo réere loolu ah dëgg dëgg dëgg day mel li arab ba waxoon ama yaquudu basiran laa abalakumu fa kayfa man kaanat al umyaanu tahdihi su fekkee silmaxa léegi nag moom mooy gindi gumba waaw.
dëgg-dëgg gumba ci dugg ci pax lay dem ah fa la jëm man de wax dëgg yàlla li ma seetlu mooy bu fekkee kilifa diine tey ñoom ñooy encourager musique nga gis ci sax ñoo xam ne dañuy am seen orchestre ah loolu moom gis nañ ko Waaw.
gis ci ñoo xamante ni dañ leen di way ñu xam ko xam ko.
seeni njaboot xam ko Waaw.
te terewuñ ko waaw ñooñu ñooñu ñooñu nan la ñuy def ak diine bi nga xamante ni dafa bañ lee comme ni nga ko waxee waaw xam nga euh, dañ ko fi sañ a def ci réew mi Euh, man damay faral di wax ne Sénégal lu ne dagan na fi ba mu des diine ju sell Hmm, subhanallah lu ne dagan na fi ba mu des diine bu sell diine bu sell boo xamante ne ci qaala allah qaala rasul alquran wa sunna kese la tegu rek déedéet waaw waaye ah loolu de laaj laaj na misaal de oustaz Waaw.
laaj na nga jox ñu ci ay misaal mu leer waaw xam nga li tax ma wax loolu mooy tey musique dagan na fi ci Sénégal ci Sénégal musique dagan na fi ah ak ci bitim réew de bëri na de waaw waaye xam nga balaa ngay wax ci Réewu euh, jàmbur.
réewu jàmbur nga wax gum ci sam réew waaw dëgg la waa loolu ma alhamdulilah dëgg la moom beneen bi tamit réew mi nga xamante ne dañ ne quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ yàlla xaraamal musique quatre-vingt-quinze pour cent yooyu yëpp ku ci ne am na foo xamante ne fa nga jàpp ne foofu nga foofu foofu la sa wasila ne ku lay jokkale ci yàlla subhanahu wa taala léegi ñoo ñëpp nag tey gannaaw bi ñu séddoowee askan wi wala boobu leen askan wi séddee seen bopp ba noppi ñoom ñu xam ne lii dafa xaraam askan wi ne ci ñoom ñuy dooleel loola subhanallah te ñoom xam nañ ne lii dafa xaraam maanaam kilifa diine yi di waaw dooleel di loolu dooleel loola xam nañ ne musique dafa xaraam kon lan moo tax ñu koy dooleel nañu wax nit ñi li ci ne rek doomu aadama euh, bu fekkente ne xam nga doomu aadama di ko yàlla mooñaale mooy dafay roy ci ñaar doomu aadama dafay roy ci ki koy jàngal gis nga sa doom bi nga jox nit mu pour mu koy jàngal li muy nangul ki koy jàngal di ko roy ci moom du ko roy ci yow mi ko jur nit dafay roy ci sëriñam ba nopp bi mu koy jox du ko du ko jox wayjur wi ko jur allahu akbar loolu moo tax ñaar ñooñu ñoo war a gën a góorgóorlu gën a ragal war a gën a ragal yàlla muy jàngalekat bi jàngalekat bi ak sëriñ bi ak sëriñ bi allahu akbar
Euh, bu fekkee nag ne ñooñu bakkan jiital na leen walla alal jiital na leen ba fëkk seen ragal yàlla ah day daal di doy waar dafay dellu rak rek ca la arab ba doon naan rek ida kaana rabbu daar yadufu daariban fa ma baalu sibyati illa raqs allahu akbar borom kër daal bu fekkee mooy tëgg Waaw.
njaboot gi war nañu mën a fecc fecc rek la ñuy defi bu fekkee borom kër mooy tëgg njaboot gi war nañoo mën a fecc ci waaw kon ndekee oustaz waajal weeru koor bokk na ci moytu musique ak yu mel noonu waaw waaw ndax musique fi muy jëme doomu aadama yellut jekkul ci weeru koor waa ki nga xamante ni moom dafay liggéey nekk animateur ci ab télé wala ci ab bërëb nga xamante ni bëccëg weeru koor yi euh, à partir de neuf heures ba midi musique rek lay teg kooku moom lan mooy mbiram ci weeru koor waaw kooku tamit moom moo war a gën a ragal yàlla te foofu sax maanaam am na bunt bu ubbeeku Euh, ci ni ñuy def ci lenn yenn ci ay télé yi réew mi dañuy nekk ci seeni caaxaan di ko publicité suñ demee ba desul lu dul ndogu ñu daal di indi benn film théâtre boo xamante ne dañuy saboté waale diine di saboté waale koor loolu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor responsabilité télé yi moom seeni télé nañ amagum ragal yàlla waaw kon borom propriétaire u télé yeeg rajo yi Waaw.
nanu am ragal yàlla ci lu parce mel que noonu it nañ cee am part de ndax responsabilité dañoo am participation waaw ci loolu di am allahu akbar allahu akbar waaw du rëy xamaat yi ñu ciy am ñaar ñaar dërëm yeeg wéccet bu sew bi ñu cay am jaru ko benn duma yàlla amul lu ko jar ci àddina wallahi wallahi jaru ay milliards jaru ko ci àddina Wallahi.
kon ñooñu dañoo war a am ragal yàlla animateurs yi tamit ñu am ragal yàlla ñu xam ne kenn ku ne boo géestoo fa nga ne gis nga fooweekaay kenn ku ne fa nga ne boo géestoo rek gis nga loo mën a foowee dëgg la
bu dul matériel mën ngaa geestu sax nga yem ci sa doom nga foog moom mën ngaa geestu nga yem ci sa soxna nga foog moom kafak ree waaye diine yàlla bi ak borom bi subhanahu wa taala ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak alquranam gii ak weeru koor gu màgg gii du fooyekaay kon daal ndeke mbokk yi waajal weeru koor li ci aju lépp mënuñ ko jeexal ci jotaay bu xaw a gàttee nii nga xam ni li ñuy waajal xam ngeen ni shaabaan xaaj na démb wala barki démb kon li des ci koor gi ay fan la fan rek.
bareetul loolu it kon daf cee jaadu nit ñi gën a góorgóorlu seen ruux ragal yàlla seen jëmm ragal yàlla waaye seeni poos ragal yàlla ñu góorgóorlu ba la ñuy lekk na nekk lu lew surtout la ñuy ndogoo na nekk lu lew waaw ustaas ndax nit am na sañ-sañu woor ba pare jël alal bu lewut di ko ndogoo subhanallah bu dul koor sax nit amul sañ-sañ boobu sañ-sañ boobu surtout koor li nit ki war a ndogoo dafa war a doon lu lew loolu nag moo tax foofu foofu moo tax may naan ñi yàlla baaxee ñu man seen bopp manal nit nañ ragal yàlla ci seen mbokk yi seen mbokk yi amul dara
maanaam ñi yàlla jox wërsëg wërsëg xam nga nit ki woor ba jant so amul lum ndogoo bu naree continuer mën naa dem ba dootul mën a woor waaye yow moom jàpp naa ni placé nga ci war cee mën a wax waaw waaw li tax ma ni jàpp naa loolu mooy ci biir Saalum ga nga dëkk waaw kaa yu mel noonu daf fay bari bari lool nga baal ma ci dagg bi mais xam naa ni war nga cee mën a wax waaw bismillah waaw foofu mën naa cee wax bu baax ndax it nag dañ koy dund di gis ñu koy dund ndax tey bu dee foofu la ñun ci sunu dëkk sunu gox ga foofu surtout aussi ci masjid bi ma ne dem naa ba ñaari at yi ñu génn nii tafsir bi dama ko daan def diggante tisbaar ak takkusaan mais ñaari at yi ñu génn nii tafsir bi diggante takkusaan ak timis laa koy def maanaam tàkkusaan timis waaw falaa koy def ndax ñu bari dañuy ñëw foofu foofu la ñuy ndogusee
allahu akbar foofu la ñuy ñëw di nga gis koo xamante ne day ñëw tëdd nga xam ne kii déglu siwul tafsir waaye am na lu ko andi dafa ñëw pour am lu mu ndogoo waaw am lu mu ndogoo Euh, ba tax na euh, loolu dina laaj ñi nga xamante ne yàlla mane na leen gan ñu gestu tamit seen mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ci yeneen gox yi te yàlla yombalul leen lu ñuy war di mën a ndogoo ndax loolu mën naa jur leen lim mën a jur mooy mën na tax nit ki découragé ci diineem ci naka ndax kat duaatul xayri niñ fi nekkee di woote ci yiw di woote ci ragal yàlla sunu dëkkandoo yi tamit sunu dëkkandoo yi chiites yi dugg nañ ci àll bi allahu akbar ñu ngi ci àll bi te xam nga ci ay ñoom dañuy dépenser dañuy dépensé man gis naa koo xamante ne xam naa ko ci jëmmam tashayya
mujj naa nekk ci Mujj naa nekk ci wal iyaadu billah waaw ba léegi nag mu ngi jëfandikoo taqiyam waaye man xam naa ko
te li ëpp ci li ko ci dugal mooy waaw néew ci lu mu jàpp néew ci lum jàpp kese loolu moo ko ci dugal te it ba ma ko xamee am na ay ñenn ci boroomi xam-xam yi ay duwaat yoo xamante ne nee naa leen lii ma leen di wax nii dem leen ca ba ca palaasam ngeen teg ci seen bët ba gaa ya demee tamit ba teg seen bot ca la ma teg sama bot ba ñëwee dëggal nañ la ma wax allahu akbar kon loolu du lu may laam-laami lu am la kon daal su ma déggee mooy mbokk jullit yi soppe yi am di jàmm yi ñu nekk ci biir réew mi ak biti réew mi ñu yàlla may ñu amee wërsëg wala ñu amee sax as wërsëg ndeke islaam nekkul julli rek ak woor déedéet déedéet islaam nekkul rek naafila yu bari déedéet waaye islaam dafa bokk ci melokaanam mu allafat qulubuhum mooy nit ku néew doole nga fexe ba nàmmal xolam islaam te mooy nga dimbale ko dimbale ko waaw dimbale ko te loolu jikko yonent bi la woon sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa wa sallam sallam.
yonent mësta bëgg ku néew doole ba mu feeñ mësta bëgg ku ñàkk ba mu feeñ ci sa kanam moo tax toujours dafa doon wax ni ne nit ñi di génne di jox seeni mbokk jël te alquran it loolu la wax lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun borom bi nee na du ngeen am ak mbaax ak ragal yàlla lu dul ngeen génne ci li ngeen am dimbali ñu amul kon loolu wax dëgg yàlla bunt bu daw yaram la maa ngi koy fàttali sam bopp di ko fàttali ñépp di di wax ni suñu mbokk bi ñu toogaloon ci jotaay bu gàtt bi nga xamante ni bëggu na sax mu gaaw a jeex mooy al oustaz Cheikh Ndour nekk imam ci suuru bokk ci île di Saloum suñu wëllëre la ñi ma xam ñépp xam nañ ko ala kulli haal dafee ñëwoon incha allah seet si woon ñu ñu def ak moom lu mel ni incha allah te noonu la ñu fas yéene képp ku nekk boroom xam-xam rek fas yéene nañ laa dékk micro ndax ñu jubbanti xeet bi ndax lu ñu mën bu fekkee yàqkat yi dañoo bëri na defarkat yi bëri ñun loolu loolu loolu lañ doon kii kon nag oustaz xam naa ñu ñu tàggatoo incha allah ba ba ba beneen bindat incha allah rabbi waaw alhamdulillah ci li ñuy tàggatoowe rek mooy di sant borom bi encore di leen sant di ñaan borom bi subhanahu wa taala plateau bi mu barkeel ko amin ya te ilahi it barkeel liggéey bi amin ya ilahi te it ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy seetaan di ko déglu yàlla def ci ñoom tamit eh, ba- saa yu ñu ko seetaanee déglu ko ñu am xol yu tooy Amiin.
yàlla wërsëgal leen loo xamante ne dina leen yokk seen ragal yàlla amin ya ilahi Eh, di la sant bu baax di la gërëm Eh, li ñuy sant mooy Daarul Birr TV Eh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla tamit yàlla na yàlla subhanahu wa taala jëmale ko ca kaw ca kanam amin ya rabbi amin incha allah eh, di ci kontaan nag bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla tamit di leen ñaan ngeen yaatal ko rek incha allah mu na dugg ci région yi fépp daal incha allah alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi sant yàlla bu baax di wax comme li nga wax di ci dëgër Daarul Birr TV moom euh, mbooloo la boo xam ni kenn ku nekk dafa am fu muy jàpp te fa ngay jàpp rafet lool macha allah jàpp gis nga lu mel nii du alal moo ko def mais nga xam nga lu ko def bëgg-bëgg xol la ñuy liggéeyee ak gëm gu ñu gëm daawa daawa bi mooy amut wallaahi waaye nag dañoo gëm ni mbale si ñu am mën nañ cee balee muy man ak ñoom ñi ci nekk ñépp macha allah macha- di góor ak jigéen macha allah ñi nekk fii ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew macha allah kon ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu jottali nit jëriñu ci yàlla na leen ko yàlla defal amin defal ñu ko allahumma amin allahumma démb bi ñuy jógee Bambey di ñëw benn jigéen daf maa woo wallaay wax di jooy ba jox naa ko kenn ki ma àndaloon isaan mu déglu ko macha allah Euh, gërëm di sant ma ne ko nag ñun bu ñu gërëm gërëmal yàlla santal yàlla wallaahi Euh, ndax yàlla mooy def lu ko neex li ñu bëgg rek ngeen ñaanal ñu mooy ñu sax yàlla may ñu moyen ba ñu mën koo financer ndax it ni ñuy waxee nit ñi joxe leen ñun noonu la ñuy joxe te noonu la ñu war a joxe te dañoo war a jiitu nit ñi topp kon hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullah xayran إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني